Euh, doyen Assane mu ngi fi doyen Ndofane mu ngi fi ak euh, Pa Ibou euh, rapidement ñu def benn tour tour de table seen première impression ci défaite bi nga xamante ne Sénégal am na ko face à l'Hollande donc deux buts à zéro pair. waaw <coughs> nous avions perdu le, le la la mère difficulté de la défaite on a perdu aujourd'hui 2 à 0. comme analyse bi bi ñu war a def. Mhm. mooy qu'on n'a pas retenu la leçon de la première période parce que. bien défendre c'est empêcher l'équipe adverse de se créer des occasions euh, nous avions dit bi ñuy commencé ne euh, Memphis de mm du du avant-centre type mais la Hollande s'appuie sur lui pour libérer un milieu de terrain c'est-à-dire ñoom bu ñuy jouer à gauche dañuy jouer à gauche c'est le prototype type de but bi bi bi euh, Pays-Bas di marqué euh, on s'appuie sur Depay qui revient sur De Jong, on plonge de l'autre côté. Le, le, milieu de terrain euh, de, euh, à cinq 3 cinq 2 boobu. Mhm. c'est un trois 5 2 avec des projections. Les gens se projettent régulièrement. Mhm. Et en général, c'est on dañuy appuyer ci avant-centre bi moom mooy orienté à droite ou à gauche. Mhm. bu xësee orienté ba pare ils ont un homme libre et cet homme libre là d'ailleurs loolu c'est le bas à bas de la défense en ligne. Quand le possesseur du ballon. est libre de tout tout marquage. nga xam ni mën na joxe bal bi ni mu ko neexee. c'est-à-dire amul koy contrer il faut rompre. cest à da ngay diminuer euh, la distance entre le gardien de but et la dernière ligne défensive ba nga xam du ko mën plonger foofu. ça n'a pas été fait amul colissage euh, dans le marquage parce que bu fekkente ne dañuy jouer à gauche ñi ñi nekk à à droite dañuy resserrer dañuy resserrer dañuy coulisser ba nga xam ni boo introduire bal bi da ngay bàyyi flanc bi fële. axe bi ngay ñëw marqué. bu ko defee bu ñu fa introduit bal nga mën ko jouer bu fekkente ne da nga tardé ça le jeu classique de équipe yi nga xam ni dañuy jouer dañuy dem def défense en ligne. le le gardien de but est le cinquième défenseur. il est en alerte. bi ñu joxee waa ji bal bi. moom mu libre de tout marquage. Mm-hmm. da am day am un day am coulissage bu coulisage bi tardé c' le gardien de but qui intervient. Mm-hmm. te coulissage bi amul euh, gardien de but bi dafa tardé c' est ça qui a amené le but et puis boo nekkee ci match. Mm-hmm. xam nga loolu laay wax ne euh, ce que nous avons perdu avec Sadio maane mhm. c'est pas simplement le leader technique. Mhm. mais c'est ah, le leader moral il a beaucoup manqué à l'équipe. c'est le leader moral c'est-à-dire ay ay yi ñu euh, ñii gars yi dañuy énervé ñii di mer et cetera mhm. et cetera alors que quand Sadio est là tout le monde ñëpp dañ koy nangul nii tu es le leader technique. et tu es leader moral à partir de ce moment am na comportement yoo xam ni duñ ko am je crois que euh, li ñu war a def fii mu nekk nii. mooy. retenir d'abord la leçon. Mhm. Euh, tactiquement, techniquement, mhm. euh, sur le but, euh, il y a eu trois fautes. La première faute, c'est que sur le porteur du ballon, il est libre de tout marquage. Mhm. Première faute. Deuxième, deuxième, deuxième faute, bu homme du milieu bi di plongé dañuy coulisser pour fermer. loolu mooy deuxième faute bi bu waa ji coulisser wul c'est le gardien de but qui intervient donc. sur boo analyser boo analyser bi bi tu te rends compte qu'effectivement il nous a manqué 100 pour cent Sadio et puis certains ont manqué de responsabilité c'est-à-dire mm-hmm. am na sur certaines balles décisives yoo xam ni da ngay war a dem mm-hmm. tu cherches à donner la la passe et cetera et loolu loolu loo loolu du loolu mm-hmm. mooy déterminant par exemple am na bal yoo xam ni Boulaye am na ko am na bal yoo xam ni Bamba Dieng am na ko Ismaïla Sarr am na ay un conte un yu mu à chaque fois qu'il a accéléré il a créé le danger il a commencé malheureusement daf ko commencé def Euh, euh, ci ci fin wu deuxième période bi alors que fii bi ñuy wax avant match bi dañ ne woon le l'arme du Sénégal c'est mhm. d'abord la vitesse mhm. on n'a pas utilisé la vitesse dañuy taxaw ci flanc bi ci ñoom Sabali ñuy def à toi à mois ba ñu ñu ko coppet et à chaque fois qu'ils ont récupéré le ballon boo seetee ñoom c'est la transition ils y vont rapidement mhm. et c'est comme ça qu'ils nous par moment ils ont créé le danger parce que d'abord l'équipe est, est désorientée c'est-à-dire tu n'es dans, dans ton système défensif parce que dans, <coughs> pendant la récupération, on est en système offensif. bu ñu récupérer bal bi mm. bala ñoo revenir à notre euh, système défensif su fekkee da def transition bu gaaw en général tu deviens dangereux mm. nous perdons aujourd'hui euh, euh, l'Équateur à trois points mm. la la Hollande surtout, à trois points surtout surtout loolu parce que defe di moom xam naa ne ça va rendre les choses encore beaucoup nous, plus compliquées nous avons encore notre destin je mm-hmm. crois que ñoom bu ñu mm-hmm. demee ba tëdd danañ ni nous avions les armes mhm. pour piquer et mhm. faire mal à la Hollande. Mhm. Par moment, j'ai cru qu'ils qu'ils trop la Hollande. Et c'est ça qui fait que euh, bu ñuy jooy di continuer di jooy Sadio c'est un peu ça. c'est-à-dire moom day day day démystifier loolu yëpp. et il amène avec lui toute la troupe. Euh, je crois que euh, au, au débriefing. quand ils vont être ensemble. ils vont peut-être non seulement revoir les fautes techniques. mais moralement aussi. ils vont se dire. nous avions les armes pour, mmh. pour, pour aller faire, faire, au moins inquiéter beaucoup plus la Hollande. Parce qu'en ah ouais. que en fin de partie, mmh. bon, c'était Ismaël Sarr, à chaque fois qu'il qu a Séléré il est passé. Mmh, Pourquoi il ne l'a pas en début de match. donc looloo si question la rapidement donc doyen Assane euh, ñu tëkkaat un peu ci deux buts yi nga xamante ne Sénégal jël na ko euh, des erreurs défensives yoo xamante ni euh, marqué nañu remarqué nañu ko ci match bi mu mel ni que ni le Sénégal a un réel problème euh, par rapport ak organisation de jeu bi surtout sur le plan défensif. waaw ouais, mais lenn lenn dafa am booy jouer match abordé ko. c' mhm. vrai que Hollande xëy na xalaat craindre nañ ko au mhm. départ. Mhm. mais bi bi bi bi match bi démarré on s' est rendu compte que peut faire jeu égal. et on a fait jeu égal. pendant longtemps on a fait jeu égal euh, li ci Ndofène wax moo ci am à un moment nous-mêmes on a eu la balle on a eu des situations mais jamais on a mis le turbo on a mis le rythme. pour euh, pour déséquilibrer l'adversaire. chaque fois on lui a donné le temps. mu réorganiser defarwaat après pour euh, pour nous mal. soo demee ci loolu nag ba am na yenn moment fatidique. même ñun ñi nga xam ne du ñu entraîné du ñu dara à quinze à dix minutes. on se rend compte que attention match bi lañ ca doon xëj na xalaat. compliqué woon na maintenant dañuy t téye point bi ñu ñu ñibbi mais on peut pas après après à la quatre-vingt-quatrième minute am yenn yenn errement ci ci défense le gars qui marque le but kenn jëlu ko kenn jëlu ko kenn kenn gisu ko euh, comme il dit euh, De Jong sur benn fin de corps il a tout le temps de se de se de se parfumer de mettre son nœud papillon placer bal bi fi mu bëgg parce que après moment boobu ñun suñu agressivité jeex na. su suñu foofu nag la ñu waroon sax commencer ñun le vrai combat. pour ne pas pour ne pas perdre ce match là. mais malheureusement euh, ça aussi euh, au niveau. c'est des détails yoo xam ne ça ne pardonne pas. ça ne pardonne euh, balaa ma sax sorti Edouard Mendy je dis déjà le marquage sur Gakpo. entre Pape Bou Cissé ak Kalidou Koulibaly. qui a fauté ci ñoom ñaar. parce que gis nañ que ni le gars il était seul. voilà le gars le gars il part de de notre axe gauche. ci ci Pape Abdoulaye Diar. Kalidou mu ngi défendre fii di xool fan la ñuy passe euh, deux pailles. yow xool keneen ki. bi da ngay da ngay ñëw da ngay ñëw fermé foofu. Mhm. Euh, Jackson resserré. maintenant ba ñëw ñëpp tardé ci la Edouard di génn mu yéex. bref daal ci gàttal mooy après benn moment da ngay jàng da ngay jàng compétir Hollande waruloo ko tutoyer. Mhm. Euh, man sax à la limite agréablement surpris parce que pour man au départ dañ di teel bàyyil bal bi. Mhm. dékku mais en première période on a fait extrêmement jeu jeu égal. Mhm. leneen li ñuy wax li ñuy yaakaaroon muy muy ci Ismaïla. Mhm. la première situation qui que tu as dañ la may bal bi. mais dañ la may bal bi da nga leen di da nga leen di wax ne dootu leen ko dolli. mais tout de suite il daf ko yël rek bi bi bi euh,